gan gi Abdou Sané coordonnateur Pastef Ziguinchor ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci matinal bi amaat mbégte nga doon sunu gan ci matinal bi. maa ngi lay lay gërëm mais di retirer un mot du ma gan réew mi FM sama kër la <laughs> donc soo ne gan bi. dëgg la bañ naa ko. waaw wañ eh, nangul nañ la loolu. maa yaa ngi sa biir kër du ma la loolu leer na yaa ngi ci sa kër ñu lay gërëm bu baax a baax ci disponibilité bi alors euh, tàmbalee waxtaan week euh, li ñu lankal Ousmane Sonko euh, fiche de parinage keroog ba mu yabalee ndawam di Ayib Daffé ca DGE lu ngeen jàngat ci boobale décision yéen waa PASTEF. jàngat boobu. bettul kenn muy fi Sénégal muy fii Afrique muy Europe muy Asie muy Amérique ñëpp ñoo xam ne ñu ngi suivre actualité politique Sénégal amul kenn koo xam ne daf ko bett parce que Macky léegi bàyyi na loi carrément pour def loo xam ne moo ko neex moo tey. Mm. parce que sooy déglu directeur des élections waxul yoon tere na Ousmane Sonko mandataire bi mën a retirer fichier yi mais daf la ay instructions lañ ko jox au lieu mu sukkandiku ci loi bi moom dafa sukkandiku ci institution boo xam ne mu ne saa hiérarchie boo ko ko jox loolu wax boobu sax day wañ nit parce que gëm a di yàlla foofu la tàmbalee soo xamee sa liggéey lépp looy def pour ëllëg jaarale ko ci yoon moo gën mais kii moom man sant yow loi lu mu la sant ak kii moom ma sant loi moo nekk ci kaw nit ki lu mu la sant mais malheureusement tey nit ñi dañu ñàkk jom ba nga xam ne garde poste pour espérer mën a tenir seen famille jaral na leen ñu jaay seen lépp ba jaay seen dignité foofu la ñu toll ci Sénégal bi. Hmm. waaye nag déglu ngeen Ayib Daffé lu mu wax mu ne dañuy dugal benn recours nañu xaar pour déglu ñi nga xam ne ñoo yore bi lan lañu ciy wax lan lañ ciy tontu ban tontu lañu ci indi. Hmm. mais ñun gëm nañu tey gëm nañu dëmb te gëm nañu ëllëg ni Ousmane Sonko dafay nekk candidat. yemuñu foofu Ousmane Sonko de nekk candidat te bu ñu ne élection am na su midi jotee mun nañu demander sur tout le territoire national ni ñuy bañ a voté léegi Ousmane Sonko ñu continuer di voté yeneen concurrents yi mais bu 18 heures jotee Ousmane Sonko mooy gën largement premier de le premier tour donc Ousmane Sonko soxla sax voté ba 18 à partir de midi la cause et déjà entendue. D'accord. parce que du moromu kenn Ousmane Sonko te dafa toll foo xam ne xejul Sénégal xejul Afrique il a une d'accord bala ñu yegg foofu ndax euh, décision booba di lan jox jox Ousmane ko fiche de parrainage bett na leen ndax euh, dafa mel ni lu ngeen waajaloon la est-ce que justement noonu la ñu war a gisee euh, le fait que Guy Marius Sagna ak ñeneen yónnee itam ñu jëlal leen ay fiche de parrainage te ñu xam ne ñu ngi ci Pastef ñoom Guy Marius Sagna ñoom El Hadj Malick Ndiaye ñoom Abbas Fall et cetera ñu ñëpp dafa nekk loo xam ne sunu stratégie la te loolu dama la koy jar stratégie kenn du ko waxtaanee rajo stratégie kenn du ko waxtaanee marché stratégie la un point un trait amul beneen commentaire bu ci mën a def lañu lañu continuer di suivre évolution des choses ba jour bu dossier di dugg cours euh, kii au niveau du conseil constitutionnel ci la ñu expliquer yéen mais fu mu ne bu noonu nekk ci xeex nga tàmbali di expliquer au détail sa yeneen initiative ou yeneen nañu yem ci constat rek nga poser beneen question. am na ñu jàpp ne ci plan B ngeen jëm est-ce que mën nañ koo gisee noonu. ñun mosuñu dugg ci plan plan bokkul ci suñu langage amul benn document bu boo xam ne boo ko liiree di nga fa fekk le mot plan ñun lu ñu xam mooy dañu am benn projet donc la lettre P foofu la amee projet ñu am koo xam ne moo ko porté mooy le président Ousmane Sonko suñu pays yëpp foofu la ñuy yem mais lu mot plan c'est une c'est un vocable extérieur à notre camp bokkul bokkul ci suñu waxtaan ñun doo ubbi suñu benn document suñu benn téere nga fay fekk ñu naan plan B nangam nag ça n'existe pas nit ñi ñoo xalaat loolu ba pare bu jël xalaat seen xalaat dugal ko si suñu xel ñoo bañ dañu ko def. Hmm. donc ñun benn candidat la ñu mës am moom la ñu mës a wax mais suñu doolee xëy dépassé na sax passé loo ko candidat premier tour tey mën nañu passé loo Ousmane Sonko premier tour deuxième troisième quatrième rek mu nekk ñoo xam ne. suñu proche lañu képp ku ñu jàppale mun nga jël deuxième place kenn ku ñu jàppale mun nga jël troisième ba quatrième c'est-à-dire que koo xam ne Ousmane Sonko jàppale na ko tey Ousmane Sonko dina assurer moom nekk premier tour au président de la République ba pare les dans l'ordre si si koy topp yëpp ñu nekk yoo xam ne ci volonté am la dépendre foofu la ñu hmm. pour te dire encore une fois que amul kenn koo xam ne dañu toll ak moom ci doole. waaw Ousmane Sonko mu nee nga am ngeen euh, yàqin ne premier tour di ngeen ko fal et pourtant bu ñu déggee euh, ku mel ni Ismaïla Madior Fall di ministre de la justice nee na Ismaïla euh, Ousmane Sonko nekkatul ci list électorale yi seppi nañ ko ci notification bi sax ñu ne yóbbu nañu ko nu ko war a yóbbu est-ce que loola jaxasoowul ci ci ci ci ci langue gi surtout concernant Ousmane Sonko ndax bala nga naa naam ne fa. waaw wax jooju d'abord il faut ñu régler benn problème. Hmm. xam nga problème bu ñu am mooy lan désinformation intoxication manipulation te sa mbokk yi bokk nañu ci je regrette mooy la presse parce que boo nekkee te un journaliste sérieux nga bëgg nit ñi respecté la nekkul ministre lu mu wax rek nga ne ministre wax na ko parce que ministre du personne assermentée ministre nekkul ko xam ne du fenn ministre du moom mooy la justice nit ñi dañuy confondre loolu man mën naa nekk ministre de la justice mais du man maay justice mais fii ministre de la justice wax na ñu tiitre ko alors bu fekkente ne léegi toll nañu ci presse boo xam ne vérification information c'est pas un problème vérification preuve c'est pas un problème waxu marché waxu grand place waxu lamb moom la ñuy defee à la une c'est la catastrophe parce que presse boo xam ne dafa bëgg ñu ko du nangu nit jaar ci moom pour wax loo presse loo xam ne moom sax gëmu ko or système boobu moo fi am tey c'est-à-dire que ministre dañuy jaar ci presse jàllale ay information avec la naïveté ou bien la complicité parfois de certains journalistes donc waxu ministre du waxu nit ku assermenté ba nga xam ne war nga bañ a vérifier su doon nit assermenté nga ne nit assermenté amul droit pour fenn mais koo xam ne n'est pas assermenté boole ci dafa nekk politique ñëpp gis ni ci lu muy wax yëpp fenn ak duul rek moo moo moo ci nekk ak <laughs> alors kooku kooku waxum dina jar nga mobiliser sa plume sa micro sa télévision pour ne selon selon selon selon selon aussi dafa am dafa am fu fi ngay sukkandiku si loolu donc loolu laa am pour tontu pour ne leen encore fois ministre tuuti na trop pour wax avenir Ousmane Sonko loi moo mun a wax avenir Ousmane Sonko mais du Macky Sall du ministre am du gouvernement am. waaw ñooñu ñëpp ils sont disqualifiés. kon kon yow su ma la déggee kon su ma la déggee wala doo candidat. waaw mooy li ñuy wax le conseil constitutionnel. d'accord donc institution judiciaire la. point keneen ku wax de walu ko neex te yéen war leen nangu sax ku amul droit wax ci loolu mu jaarale ci yéen pour yéen ngeen wax à sa place. d'accord nangul naa la li nga wax euh, monsieur Sané mais tamit da ngay nangu ne ministre de la justice wala ministre de l'intérieur ñooy kilifa politique ñoo ŋànk état am na yoo xam ne bu buñ ko waxee moom la ñu mun a jàppee voix officielle léegi nag dëgg la am du dëgg loolu leneen la lu ñuy vérifier la après ndax mbiram Karim Wade ministre de la justice wax ci mbiram Khalifa Sall ministre de la justice wax ci te la ñu waxoon bañ loolu moo fa nekk donc yow est-ce que bu ma la déggee euh, li nga bëgg a wax mooy li Ismaïla Madior Fall wax ak li keneen ak keneen wax ci mbiram Ousmane Sonko yéen waa PASTEF bàyyiwu leen ci xel calculé wu leen ko loolu la. non du loolu ñun amuñu temps pour valoriser Ismaïla Madior parce que déglu sax Ismaïla Madior franchement may ko may ko succès la. Antoine Diome ku ko déglu franchement da nga am jot. ñun xam nga lan la ñuy def. Hmm. dañuy lire loo xam ne moom la ñëpp bokk fii Sénégal mooy la dañuy liir loo xam ne moom la ñëpp bokk fii Sénégal mooy le règlement loi et règlement mooy sunu mooy sunu document de référence. Mm. am ñu temps pour déglu ay nit yoo xam ne dañu suufee trop par rapport à nous kooku ñun tolluñu fu ñuy yablu sunu bopp. donc pour dire que ñoom seen wax ñoom la engagé. Mm. ensuite bul fàtte nii deux mille dix neuf am na ay candidats yoo xam ne malgré que dañu leen condamné woon. mais pour côté parrainage dañ leen autoriser ñu jël seen fichier ba def parrainage. Hmm. conseil constitutionnel moo ñëw après. valider invalider pour bañ a valider seen seen candidature. du ma hmm. dugg ci ay tour mais war nga mën a xam de quoi il est question. pour hmm. dire que même sama doom bi nga xam ne CE2 lay def soo ko waxoon loolu rek dana may papa ma defe ne 2019 bi nga xam ne j'avais 4 ans lii abord na ci Sénégal et pourtant nangam nangam pour dire que ministre il est libre mais ñun on est de choisir la loi et les règlements te ñun foofu ñu taxaw. loolu moo indi ñu ne léegi on va faire un recours avec le brillant député Ayib Daffé nga xam ne moom moo porté le dossier le plus suivi au monde mooy dossier du brillant et charismatique président Ousmane Sonko. d'accord euh, notification biñ ne mooy firndeel ne seppi nañu ko ci liste électorale yi gis ngeen comme déet. man su ma nekkoon à votre place. Hmm. du ma nangu sax wax ci loo xam ne nanguñu ma ko woon. pour obliger gars yi su ñuy wax mu bañ a yomb trop ci ñoom parce que ñoom léegi lan la ñuy def bu ñu buggee sondé dañuy wax jox presse ne leen ñun lii la ñu def non non notification dafa am yoon man tey boo ma doon notifié nii da nga ma génne ci liste yi xam nga nan lay defee. Hmm. sama adresse électorale ngay jël nga fekk si ma Ziguinchor nga ñëw jox ma notification bi ma am dix jours pour def recours léegi su fekkee yow journaliste nga keneen ñëw mu ne Abdou Sané jox nañu ko lii bul topp directement jox nañu ko nee na ci la wax wax ko tegal ma preuve woon ma fan nga ko notifié bu bañ a yow nga bañ a mu utiliser la mais ci presse bi dafa yomb trop facilement nga utiliser journaliste dem am na kenn ku ne pourquoi acheter un journaliste on peut acheter le journaliste donc c'est pas bon pour image crédibilité presse dans le passé nekkoon na référence mais tey neexul ba neex c'est la catastrophe dem na ba finalement réseaux sociaux yi sax dem nañ ba ñuy subsié wu à la presse doo xam réseaux sociaux et autres la kan moo tane kan moo kii day tax réseaux sociaux comme ñoom am ñu engagement yeneen affaires yi c'est ça donc notification boo xam ne adresse électorale bu Ousmane Sonko Ziguinchor la on nous parle d'un sous-préfet fële ñëpp di koy tiitré victorieuse ba xaw ma c'est yéene la aussi ou bien complicé la wala comme on le constate au niveau du Sénégal léegi tous les secteurs sont que aussi mu nekk loolu mais le sens de l'esprit critique nuance war na may kenn ku nekk nga moytu ci information boo am surtout venant du clan boo xam ne ci manipulation la ñu dëkk ak ci fen bul nangu nit jaar ci yow mu lay yóbbante ay wax yoo xam ne moom ci boppam gëmu ko bu yàggee dafa lay disqualifier dafa lay discréditer dafay wàññe yow sa makaama moo tax ma profité ci occasion boobu pour encore demander aux citoyens et à tout le monde d'être vigilant ci intoxication bi am léegi bu fekkente ne. kon notification amul kon xam nañu lu ñu war a def. Hmm. parce que nous avons des avocats. mais suñu ñun suñu référence c'est la loi et le règlement ah, du waxu ministre du waxu keneen ñooñu ñëpp c'est pas des personnes assermentées mais nee nañ huissier bi war na juróom fukki fan gisul fu muy euh, joxe notification bi est-ce que ñëwul sigi coor ngeen bañ ko jël wala yéen yëgu leen sax coowu notification ci prison ba hmm. pare nga ne gisoo nit ki xam nga ni wax jooju sax may wax boo xam ne wul maanaam man tey su fekkente ne dama la respecté dëgg dinaa ruus ñëw pour ne la yow Ousmane Sonko maa ngi koy war gisuma ko te Ousmane Sonko man mii maa ko téye. vous vous compte est-ce que kooku c'est cohérent est-ce que kooku pour wan leen le niveau de catastrophe boo xam ne moom la ñuy tey si par rapport à une certaine presse nit ñëw taxaw ne cinquante jours gisuma ko nga ne fan la Ousmane Sonko ne la même personne te dit man maa ko téye prison mi ngi nii hôpital ma gardé loolu dafa maanaam. on n'a pas besoin d'avoir un esprit très élevé on n'a pas besoin d'avoir de très grands diplômes ko war a bañal boppam. parce que c'est impertinent. kon yow man du ma relayer. Hmm. genre information yi parce que finalement man la ñuy xool. d'accord kon yow liñ ci dafa mel ni dama naïf. Uh-huh. wala dafa mel ni dama cuune. or c'est des valeurs dégradantes. d'accord ñaan sama yaay mu fier de son fils ñaan sama pap mu fier de son fils. mais ñaan ma ma nekk à la une dans le sens négatif du terme. kon yow li ñu ci wax yëpp euh, da nga jàpp ne manipulation la bu état bi def jaar ci. presse question dama jàpp yow yow mii sax war nga nangu ni manipulation soo ma ne Ousmane Sonko cinquante jours huissier mi ngi koy wër te ñoom ñoo ko téye police wax boobu am na maanaam pour nga may laaj est-ce dama jàpp. yow mi doo ci bokk. man yow laay laaj sa xalaat man sama xalaat. bu ma la ko waxee fii waxtaan rek. waaw d'accord laaj xam nga tontu mun na mun naa la tontu ci question. dëgg la ñu ne Ousmane Sonko wër nañu ko pendant cinquante jours pour jox ko notification gisuñu ko. Hmm. fan la Ousmane Sonko nekk ñu ne la ñii di wax noonu. ñoom ñoo téye Ousmane Sonko ñoom ñoo ko téye. waaw loolu moom jaxasoo na. wax jooju est-ce que am na est est est dina jar a tontu. d'accord alors ñu jeexal ak euh, parrainage bi euh, Abdou Sané gis nañu ne euh, ñu baree bari wane nañu seen bëgg bëgg ngir bokk ci élection yooyu wante am na ay coppite ñu ne indi nañ ko ci parrainage bi peut-être pour ñu mun a wàññi candidat yi ñu éliminer comme 2019 ni ñu defoon ba am juróomi candidat est-ce que ni yëf di demee am nga yaakaar ne xëy na bu ñu yeggee ca cëppaandaw la yenn problème parrainage du posé wu pour yenn candidat yi donte peut-être yéen Pastef bu dee parrainage des am ngeen leen assez de députés pour parrainer seen candidat bu dee benn candidat ngeen di am mais de manière euh, général est-ce que yaakaar nga ni dinañu am euh, moins de problème ci parrainage bi bu ñu ko méngaleeg 2019. li wër ba wër mooy man ci ma féetee mosuñu am problème parrainage pour sa information élection yu mujj yi mooy législative ñun dañu parrainé ba ñu jàppale ay coalition complété leen seen may leen ay parrain hmm. ñun ñooy camp boo xam ne mun nañu ne tey tey tey dix personnes dix candidats te ku nekk di nga réunir les conditions de parrainage ci ñetti options yi mooy option citoyen zéro virgule six minimum à zéro virgule huit cent vingt mooy élus locaux yi deuxième option bi ak troisième option valeur de treize députés ñetti options yooyu mun nañu leen utiliser ba dix candidats yoo xam ne ñun mun nañu leen pare ne te kenn ci ñoom du am problème ensuite ma rappelé leen ni Sénégal du moomeelu baayu kenn du moomeelu yaayu kenn ñun ñëpp ñoo ko bokk ñu tënk ko ci constitution képp ku xalaat ni moom mooy tànn ku war a bokk élection ou ku warul bokk élection nax nga sa bopp parce que dafa war a xam ni hérité ko nii de son père nii de sa maman kenn du seetaan nit def lu ko neex ci loo xam ne ñun ñoo ko bokk kooku beneen forme de résistance mooy jën boo xam ne du nekk résistance avec R minuscule mais résistance avec R majuscule ute na trop ak li fi jàll donc na loolu leer donc élection yi amul na lu dul loi ak règlement comme référence koo xam ne mën ñu tere dem au-delà ñun amuñu problème problème boobu sax mënuñu ko am voilà. Mm. yaakaaroon ne itam euh, malgré changement yi ñu indi ci système de parrainage bi ak vérification bañ na itam danañ ko gën a ñoŋal ca conseil constitutionnel euh, problème mën na am ba léegi ndax euh, ñu euh, bëri ci opposition bi jàpp nañ ne parenage bi lu ñu ci mën a wax piège la wala jumtukaay bu ñuy euh, jëfandikoo pour sepp yenn candidat d' abord xam nga ni parrainage am na benn avocat te mu nekk candidat à la présidence saisiroon na fi waa CEDEAO waa CEDEAO condamné état du Sénégal jënd nañu bay parrainage or Sénégal ñi nga xam ne moom mooy tiitaru ci tuuru CEDEAO pour intervenir au Niger moom mii moo bañ a respecté loolu mais tout compte fait man côté boobu duma wax au nom de l' opposition comme yoon ni ñu koy wax mais au nom de notre camp ñun amuñu benn problème pour parrainage ma ne la ñun rek ñoo mën a bakku pour mun a parrainer lu toll ci dix candidats te ku nekk di nga réunir toutes les conditions d'éligibilité ce dossier bi dina jàll te léppay set dix candidats mën nañu ko def ñu demee tam élection Ousmane ko moom premier tour day jàll deuxième troisième quatrième cinquième sixième ñun ñooy déterminer kan mooy nekk deuxième kan mooy nekk troisième kan mooy quatrième suñu neexee. parce que hmm. képp ku ñu jàppale di di di di nga jàll ñun rek ñoo mën a bàkku ci loolu donc am ñu. mooy seen secret lu mën a jaxase suñu xel parce que mënoo am doole. Hmm. nga yore volonté pour peuple bi nga yore diaspora bi nga yore dëgg bi nga yore le meilleur projet ba pare nga war a am ñaari xel kooku ça n'a de sens. Hmm. bu dee am na ñoo xam ne ñoom ñoo am sérénité aujourd'hui ñun la parce que nous sommes gagnants ñun la parce que nous sommes populaire ñun la askan bi tànn moo war a tey tout est sonkorisé amul benn dëkk boo xam ne boo fa demee di nga sonko ciwuñu ah, ko foofu Donc, pour te dire encore une fois que le peuple a déjà tranché, son choix est irréversible. Ousmane Sonko mooy nekk le président de la République au soir du 25 février 2024. soreetul amul leneen amul beneen doute amul beneen hypothèse amul ministre yi moo nee li amul Macky Sall moo wax li <laughs> li peuple bi bëgg mooy loolu léegi képp ku am fit ne yow da ngay defante ak sa peuple on verra bien. jërëjëf Abdou Sané 2024 soreetul euh, ñu yónni yàgg mi bawul dara ñu ngi lay gërëm ci ànd bi ak ñun gërëm la bu baax a baax ci euh, disponibilité bi amoon mbégte dalal la ci matinal bi. jërëjëf da nga lay gërëm di lay encourager di lay souhaiter plein succès dans